na la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 ngir ndokkeel si la ziyaara si la sargal la it ci sa bésu maam bi mu oote ak cant jëm si boroomam comme cant googu ñu ngi koy àndandoo ñun borom bi tànk yépp si kaw jiitalu alaaji Pala Mbeng ji réew ni ko mën Mansour waxee duma si jaaraat ànd nañu ak jaraaf yi ànd nañu ak ndey ji réew yi ànd nañu ak saltige yi ànd nañu ak ndey jàmbur yi laman yi ànd nañu ak jaraaf yi ànd ak fre yi ñëw siyaar si la loolu mooy la république lébu ñun département Rufisque yëpp ba jàll Grand cap ñoo ànd ak sunu wéyjur sunu ndijaay sunu baay ndey jëre walaaj pala meng ñëw siyaar si la ziar boobu ñu ñëw ziar si la nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla nay ak wér si yow yàlla nekk sutura si yow yàlla nekk mucc si yow yàlla nekk ubbeeku it si yow barkinteel Maodo yàlla boo jëm dara loo télé nag ñu ko waxoon si Dakaru rek xam nga ñu ne sëñ Modou Mbacke mii di seen bokk mooy seen bunt si man suppewunu ko toxalunu ko bi ñu doxee mbir mi sëriñ Abo Mbàkke mu baax mii jokkoox mustafa mustafa jokkoox sëriñ Modou dafa nekk genn ak càllale rek ngir ab caxa day am ak digg digg ba yëpp dañ koy delloowaat si ndey jiroo alaaj Pala kon kàddu yi du gudd ku lim doo jum waaye da fàtte waaye jigéen ñi it ñëw nañu ànd ak seen présidente Adja Aïta Diagne mooy fere jigéen ñi toog nii ngir lébu mu bindoo noonu kon damay delluwaat kàddu gi euh, sëñ Mansour di la ziyaarat bu baax di faslante kóllëre it xam ne bu ñu la gisee ñu ngi lay ñaanal bu ñu la gisul ñu ngi lay ñaanal ngir cofeer gi yàlla dogal suñu diggante xew kon lii yàlla na yàgg loo song yàlla nga ko daan ku song di yàlla na daanu ak ku mu mën a doon nag loolu daal moo doon kàddu gi di lu wax ne lébu yu baax yii nga xamante ne ñoo ñu jiite jiital nu si lii nu àndandoo ak sunu ndijaay mënuñu leen fay nga ñaanal ñu yàlla sëriñ Modou nag wax na ne ba nu fa jógee ba léegi mu ngi dox ñoom nag ñoo ko wax dañu bëgg nga ñaanal nu it mu gën a dox ci sa barke maam asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Bass Abdou Khadr asalaamualeykum ñu ngi lay ñaanal bu baax jàmm Mbàkke ñu ngi lay ñaanal wér Mbàkke ñu ngi lay ñaanal sutura Mbàkke yàlla na ko yàlla yokk waaye daal xamul xaw ma ku xamul li muy def waaye Mbàkke yow de xam nga li ngay def bu wér nga xam li ngay def réew mii ñu nekk nag Mbàkke nga bari fi soppe lool kenn musulaa dégg nga wax wax boo xam ni ku ko dégg doo ko rafetlu loolu doy na sëkk waaye nag kuy sa maam Serigne Touba waaye papaaya du jur kaan yi Mbàkke yàlla nga fi yàgg bokk lébu yi ñëw nag dañoo ñëw dañoo ñëw ngir ngir sa maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ne nañu ko santale ne nañu ko santale yàlla ñun nag dañu ne bu ñu toogoon fa ñu toog ñun ne dañu ne bu ñu toogoon fa ñu di ko ko santale di ko ko dana ko gis naam dana ko gis naam waaye nag fii la dàqee waaye la dàqee moo tax ñu ñëw moo di sàkku lii ñu yor nag di ndabi tànk lébu di ak ndey ji réew di ak ndey réew wax na barki démb wax na barki démb ne ba indépendance amagul ba tey ne ba indépendance amagul ba tey musuñoo gis musuñoo gis ndey ji réew ndey ji réew bu président de la république recevoir ak délégation la république recevoir ak délégation la daan am daal la daan am daal mooy da ngay nekk ci délégation mooy da ngay nekk ndey ji réew bekku ci door a dem ci délégation bi waaye ci moom nag la yàlla dogalee premier ndey ji réew ak son délégation reçu pour président de la république tey jii nag jàpp na ne fii ci Touba la dal président moo dal fii ci Touba benn ndey ji réew musul ànd ak délégation ñëw Touba. borom ndomb tànk bu ne ñëw na fi waaye ñu bëgg Mbàkke nga defal ñu ñaan ndax dëgg-dëgg bis bii daa nekk bis bu rëy ñu gërëm bu baax sa mbokk yu baax yi sëñ Modou Mbàkke sëñ Abo sëñ Modou yaay waatil bu yoo tamit ab waay bi xaar yaay buntu bi waaye sëñ Abo day suñu soppe lool suñu xarit. day soppeem lool di xaritam lool. ñu xam këram. ñu xam këram. mu xam suñuy kër. xam suñu kër. ñu xam njabootam. mu xam suñu njaboot. bi ñuy def intronisation. bi ñuy def intronisation. palaasam ma nga fa mu toog. palaasam ma nga fa bu mu nekk ci yoon. mu nekk ci yoon. otopaan moo ko tere yëg si. loolu mooy suñu diggante. waaye bésu tey bii. waaye bésu tey bii. sëñ Bas. mi ngi wax loo xam ni ñii mu àndal bariwul ñi ku ci yëg dañuy lancé tey jii site internet boo xam ni lépp gi moo ko moom kon bu ñu ñëwee fii ci Touba dañoo bëgg sa ñaan ci site boobu nga xam ni lépp gi TV la tudd ñu ngi koy door a dégg ñu laal si site bi bientôt dinañ dem ci perspective yépp ci yow la ñu njëkkee Mbàkke kon nga def ñaan ci loolu Mbàkke yàlla mi méngale sa bisu maam bii fekk fi ñuy lancé lébu gi site internet kon yaakaar na ni sa ñaan moom la yàlla nangu nangu ba tax li am lii ci des nag mooy ñun lébu yi mooy ñun lébu yi ñi nekk ci Cap Vert ñi nekk ci Cap Vert ndey ji réew ji jiite ko ndey ji ji jiite ko bëgg nañu bu ñu jógee fii bëgg ñu jógee fii nga seetal ñu bés nga seetal ñu bés boo xam ni boo xam ni dañu lay invité dañu lay invité ngir sa taxawaay ci réew ci réew mi ngir sa taxawaay ci sa kër maam ngir sa taxawaay ci sa kër maam danañu la recevoir xam ni boo fa ñëwee di nga xam ni ñun li ñu doon moo di dalal góor nee na nag mu barkeel nag ci kër maamam la fa barkeel Sëriñ Tuubaa ma fa jaar fanaan fa nañu dalale woon sama maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba mu barkeel tey yow mi Mbàkke bëgg nañu li ñuy def ñu dalal la ca. ngir taafu dabu barke ba. ngir dabu ba. yal na yàlla wéral la. yal na yàlla wéral la. yal na yàlla sàmm la. na yàlla suturaal la. loo jéeme ci Mbàkke. yal na ci yàlla joo loxoom. ba fi nga bëgg a yàggale sa kër maam gi. nga yegg fukk bëgg a yeggale Mbàkke. te incha allah. jàppante nañoo ak yow. téyante nañoo ak yow. la waaja waxoon rek. léegi sëñ Abo. mbokkum séeréer mbokkum séeréeram bi daa jokk woon daal ci benn mbàkke mbàkke daa jokk woon ci mbàkke mbàkke bi ah, jamonoy dox jamonoy dox ba benn màggal ba benn màggal mu ànd ak moom mu ànd ak moom yanu waxande wi yanu waxande wi ñëw sa kër maam ñëw sa kër maam waaye bi ñu màggalee ba waaye bi ñu màggalee ba dellu kër ga mu ne ko ah, dañuy war a dem mu ne ko dañoo war a dem mu ne ko yow daal dama lay ñaanal mu ne ko yow daal dama lay ñaanal yàlla yow mën ngaa bu kon ñëw naa ci ba fan gu mag gi yow naa yow yaay yaay doon daal sant naa la gërëm naa la waaye sëñ Abo xam nga yaay xaritam mat na fanweeri at ba léegi paala beng sa xarit la waaye ndey ji réew ji xaritu sëñ Bas te danañu ko dalal te danañu ko waajal lu ñu am ak ku ñu am danañu xam ni yaay xaritu ndey ji réew allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di delloo am nuyoo bu baax di suñu mbokk yu baax yi bàyyi ko ndakaaru di bokk ci lébu yi ñuy teg nuyoo bi ci loxol Serigne Malick Malick sëriñ Maodo Malick Ngom ak sëriñ Pala Mbeng ak mboolem ñu ñu àndal ñëpp bu ñu leen xasee tudd rek mën nañu yóbbaale ñu ci des ñëpp di rafetlu kàddu yu baax a baax di leen dalal jàmm li alxuraan santaani rek wa iza xuyyitum bi taxiyatin fa xayyu bi ahsana kon buñ leen mënta jox nuyoo ba bu yeyoog bi bu rafet bi nga ñu jox ñu dellowaat leen nuyoo boobu di sant bu baax a baax ci lii nga xam ne def ngeen ko te yàlla def mais mujjee ndakaaru ngeen defoon délégation bu mag ñëw fa àdduna rafet lu ko wala képp ku bëgg lu baax fasanteeg man kóllëre te kóllëre googu ngeen fasanteeg ma it ngeen di xam ne nu ngeen ko jàppale jàpp nañ ko nu ko ëpp ndax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan ne jullit mbokkam dëgg-dëgg mooy ci mbokk diine lislaam kon ñu xam ne li ñuy wax yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila taarafu kon li tax suñu borom bindi xeet yi wuutale ko loolu tax waaye nag inna akramakum indallahi atqaakum ki gënal yàlla rek mooy ki gën a ragal yàlla foofu la ñuy gënantee waaye annaasu min jihati tamthili akfa'u abuhuma aadamun wal ummu hawwa'u fa in atayta bi faxrin min zawi xasabin yufaaxiruuna bihi bi tiin wal ma'u mal faxru illa li ahlil ilmi innahum anil huda liman istahda adillahu kon ñuy rafetlu bu baax a baax jéego yii ngeen def te Sëriñ Tuubaa dafa masa wax ju am solo booba ay mbokk jullitam kilifa gu mag moo fi yónnee woon délégation bokk moom lislaam ji mu ne ko bu ngeen demee nee leen ko yaar rek fi nekk inna man moom ne ixootu ak inna cheytaan lakum aduwun mu ne ko inna man moom ne ixootu mu ne ko ak tey la inna cheytaan lakum aduwun ak nax la mu ne ko waaye tey gi ci inna man moom ne ixootu nag nax gi ci inna cheytaan lakum aduwun mënu ko yàq kon nag seen délégation bi nga xam ne koo gis xam ne ne fonk ngeen fi ngeen jëm waaye li ci ëpp solo nag mooy sëriñ Touba ba ñu woote bis bii wax ne na ko ci ñëpp santal yàlla dafa wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbéga boo seete na mooy santal yàlla ci sant yàlla nag mooy ci berde wax ne nag kon yéen dégg ngeen li sëriñ Touba doon woote kon bu ngeen demee ba ñëw fi xam ngeen ne Serigne Touba képp ku bëgg lu baax rek wala képp koo xam ne ab jullit nga walla képp ko sopp rek bokk nga ci biirum njabootam kon loolu yëg nañ ko bu baax kon ñu ngi sant bu baax di rafetlu tànk yi di leen gërëm bu baax di leen ñaan itam suñu borom gën leen dëgëral kàttandal leen di leen xamal ne daal jàpp nañ ko léegi dégg nañ ko te fas nañ bu baax parce que yi ngi koy ne sàmm lépp loo xam ne nekk ngeen koy itam ñu ànd koog yéen ci lu baax. wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di ñaan bis bi itam nga xam ne ren ngeen ko tàmbali ngeen yàgg ko def bu baax a baax day ceeg ngërëmul yàlla suñu borom day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo wootoon bis bi ñu ngi leen sant bu baax cant gaañ suñu xol lañ ko tibbee salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Sëriñ Abo mii nag nga xam ne leeral nga seen digg moom xam ngeen lim doon ci dëkk bi ndax maamam Cheikh Ibrahima Fati xam ngeen lim dem sëriñ bi waaye mu bokk muy am taxawaay bu ràññi ko ci liggéey bi sëriñ Modou mi itam dafa bokk ci yéen kon dafee taxawee ñaari tànk dafa bokk fi ba bokk ci yéen kon na ma leen ko waxee woon rek maa ngi yeesalaat loolu te mel neen dégg ngeen ko ndax noonu ngeen ko doxalee kon loolu tam ñu ngi salaat boole gi ma leen boole woon incha allah lépp loo xam nekk ngeen ko rek bu ngeen ko ko yëgee rek danaa ko yëg. ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah